conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen may seen de presse tey leen ay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa njiitul parti réew mi di Idrissa Seck mi ñu tabbu conseil économique social et environnemental ngir mu jiite kër googee démb ca biir kër ga doon nañu ko fa samp maanaam doon nañu ko installé waaye nag indi na ay leeral ci lu bare ndax kero bi nga xam ne Macky Sall yóbbu na ko conseil économique social et environnemental bëri na ñu mu bett bi ndax dañu doon wax ne Idrissa Seck dafa def maa waxoon waxeet ndax fii la nekkoon ci réew mi kenn leelu ko suukar mu ne ab décret duutu ko falati te wax joojee génn na sa Idrissa Seck leeral yem sa indi nee na musul wax ne ab décret duutu ko falati fas yéeneetuma nee na la wax fas yéeneetuma nee na nag fas yéeneetuma ak ab décret duutuma falati bokku la yéen a kaay gii di Vox Populi moom Idrissa Seck démb wax na lu leer nee na ñi nga xam ne ñoom laa àndal di politique ak ñi président Macky Sall àndal di politique na leen na jamono ji sama diggante ak Macky Sall neex na diggante bi good fine maanaam ñoo ngi mel ni mburoog soow yéen a kaay gi di réew mi quotidien moom Idrissa Seck dañu ko doon tuumaal ne kër ga ba mu fa dikkee da doon càmbar yorin wi nga xam ne moom la Aminata Touré yore kër ga Idrissa Seck daat na koy weddi ndax nee na bi mu dikkee fekku fa génn këyit gu koy wanne kër gi lii moo fi nekk rawatina ci compte bancaire yi moo taxoon mu doon def lu état des lieux moom Idrissa Seck nee na conseil économique social environnemental kër la goo xamante ni gu am solo la te nag dafa war a taxaw ci ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te amuñu liggéey journal bi bii di réew mi quotidien ba tey Aminata Touré daal di tontu nag Idrissa Seck nee na Idi su ngeen gisee muy taxaw di laaj ay këyit ci kër googeen ni ñu ko yoree woon mooy dafa toog lu yàgg a yàgg loo xamante ni liggéeyul loole moo tax te jamono ji nag administration ak adduna bi dafa soppeeku lépp loo xam ne am na ci kër ga dañu ko informatiser ñi nga xam ne ñooy samay collaborateur comme dañu leen a woon ñu dugg sa kër googee ana nan la ñuy expliquer Idrissa Seck mbir mi te keroog bi nga xam ne maa ngi def passation de service Idrissa Seck ñëwutoon ndax su ñëwoon dinaa koy expliquer lépp ba tey ci biir yéene gi gi di réew mi quotidien ñu fekk fa président Mbagnick Diop mi nga xam ne membre la conseil la ci conseil économique social environnemental daat nay wax ne départ bu yees la ñu amee rawatina nag lu jëm ci wàllum xëyum ndaw yi nga xam ne war nañu koo lijjante rawatina émigration clandestine bi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg man la ci réew mi daat nay wax ne jamono ji nag ndaw ñi bu ñu amul lenn loo xamante ni moom la ñuy def duñu ñu xalaat lu soobu ci ndox mi bu ñu réussir baax na loolee mooy nekk ci xelu xale yi Sénégal nag mën na ñoo wax ne dafa yàgg am ay jafe ci lu jëm ci xëyum ndaw ñi sos forum de l'emploi des jeunes jamono jooja nag ñu bari ñoo ngi doon wax ne Sénégal amul ay jafe-jafe ndaw yoo xam ne amuñu xëy ba ñu demee ba 2010 gis nañ ne chômage bi bëri na ci réew mi bëri ci Afrique ba nga xam ne mujj na nekk principal facteur politique réew yu bari ci àdduna bi jamono ji nag 2020 mën na ñoo wax ne ñëpp gis nañ li nga xam ne moo xew ci réew mi ñàkkum xëy gi nga xam ne tax na lu bari ndaw ñu di ci dugg te nag li am président MEDES bi nee na conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil économique social environnemental ak député yi ak bànqaasu nguur gi ñoom ñëpp ñoo war a mobiliser ngir nag taxawu indi ay solution ci immigration clandestine bi nga xam ne nee na seen i jarbaate ak seen i ñooy naax saay ci géej gi yéen a kaay gi de la témoin xëy wax ci guerre bi nga xam ne moo am ci diggante Idrissa Seck ak Aminata Touré ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum politique daat nañuy wax ne diggante la boo xam ne bu yàgg a ñagas la rawatina nag li nga xam ne Macky Sall xam na ne Idrissa Seck jubawul ak Aminata Touré mu jël Idrissa Seck yóbbu ko fa nga xam ne fa la Aminata Touré nekkoon loole nag dafa yokk ci xaar mi a kaay gi la sa nee na Idrissa Seck niki démb wax ne bën a gër Cheikh doon jéem a convaincre Sénégalais yi waaye amul kenn ku mu convaincre ci wax waxeet ji nga xamante ni def na ko yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Idrissa Seck ni ki démb maanaam li fi waxoon ne ab dëkkëre soxlaatu ko démb moom la doon jéem layal waaye lay na ba sonn ci maa waxoon waxeet ji yéen kaay gi di Libération bàyyi mbir moomee wax ci jàngoro ji nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci yenn ci ay mool journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk caaroye di jaay jën ca marché ba gisatuñu benn client ndax client yi dañu leen di daw yéen kaay nee na enquête li nga xam ne moom la jot a waneegu na gis nañ ne contamination toxique la jàpp ne am mbir la daal moo xam ne dañu koo def ci géej gi enquête yéen a kaay nee na ginnaaw caaro yi ak saint lu toll si ñaari téeméer ak fukk ak juróoma ci ay mool yoo xamante ni amee nañu jàngoro ji Mbuur ca Ndaayaan ak sa Joal yéen a gi di Vox Populi nee na lu jege junni ci ay mool yoo xam ne amee nañu wopp ji yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal laa ñu maître Abdoulaye Wade def na remaniement instance parti bii di PDS Abdoulaye Wade andi na sa ay coppite Bara Gaye nag ndombay tànk yi ñu ko takkaloon tekki nañu ko la ko waral bokk na si ñol ñol amoon ci siège PDS bi dañoo jàpp ne moom la la kero bi def lancement njaayum carte Bara Gaye simple la yéen a kaay gii di la témoin nee na Karim Wade moo tee ñu dàq Bara Gaye ndax bëri na ay cadre yoo xam ne dañoo bëggoon ñu dàq Bara Gaye yéen a moom gisul loolu dafa gis na Karim Wade moo bëgg a doole Bara Gaye te Bara Gaye su moytuwul fa ñu jaarale ay moromam sànq ko fa la ñu koy jaarale yéen a kaay gii di l'Observateur xëy yóbbu ñu diwaanu Chine nee na étudiants yi nga xam ne ñooy étudiants sénégalais yi nekk Chine ca Wuhan jamonoy covid 19 fa ñu leen dencoon ba léegi ni fa ñu leen dencee gi nee na sa kaay la leen bàyyi te kuy génn sax autorisation ngay wuta ñoo ngi dund musiba ak jahanama jafe-jafe yi nga xamante ni coronavirus andi na ko ci réew mi loole nag tax na directeur général bu COSEC di Mamadou Dione démb bu def na lancement phase pilote des expositions li ko waral nag mooy fas yéene xayma jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus andi na ko ci importation yi ak exportation yi waaye nag ñoom am nañu ay chifre d'affaires la ko waral bokk na seen plateforme yi nga xam ne vente en ligne la yéen a kaay gi wax ci Sadio Mané ak taxawaay bi nga xam ne amee na ko war a boot équipe